assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh euh li waral tewa bi fi ci Medina Baye euh di waajal eh, gamu gi nga xamanteni dañ koy wara taxaw nak yi samedi bi di ñëw incha ñu koy def at mu jot nag suñ ñëwee ànd ak mbokk taalibe yi nekk kawlak yépp mbokk Baye Fall yépp da nga suñ ñewé da nga and ak eh, wa mirna da nga balé quartier bi yépp da nga ak liko wër wa ngir gan yi nga xamanteni dañuy ñew di eh, gamu ci fi Medina nga xamanteni gamu international la waa Ghana Nigéria Amérique euh, Côte d'Ivoire ñëpp dañuy ñëw dégg nga loolu nag moo tax dégg nga ñuy ñëw dégg nga incha allah ànd ak waa di bale si euh, Medina dégg nga incha allah di di sàkku ba di euh, jokk ak mbokk ak taalibe ak wut aw yiiw xam nga day lu baax loo xamante ni gis nga lu baax dafa ma def soo ko seetee soxna maam Faati Mbàkke ci Tiwaawoon dégg nga def na ko tey ànd ak murid yi nekk Tiwaawoon yëpp dégg nga dem bale Tiwaawoon euh, loolu nag mooy mooy lu baax euh, lii nag yaakaar naa depuis 2008 ba léegi ñu koy def ànd ak daayira murid yi nekk ci quartier bi yëpp ñu daayira Yaasu Mbàkke Ndooy ñoom sëñ Abdou Xaadir lii ak mbokk taal bi fi nekk yëpp dégg di ko taxaw bale quartier bi ba mu set muy lu baax loo xamante nii lii lañu bokk mooy dina ji ñoo ko bokk dégg nga dëgg la Cheikh Ahmadoul am na Euh, dëkk ñu wax ñu ko wax Touba Kaolack dañuy gàmmu ñoom it waaye li tax ñu gën koo def rek dëgg jaxasoo gi nga xamante kilifa yi jaxasoo woon nañ ko ci maslante ak jàppalante ak euh, bennonte da loolu moo war da nga ñu noon nañ ko defaat ni ngir moom dafa xaw a doy waar léegi su fekkente ne tey bàyyi nañ fañ dëkk tey ànd ak waa Medina ñëw di bala Medina ñoo bokk benn taxawaay waaw loolu loolu lañ ci gën a jublu waaw parce que des relation la woon yoo xamante dafa yàgg rafet ci diggan diggante yi ñu daan dem lente di am lente di ñëw di euh, ñëw lente dégg nga soo ko seetee kilifa yi fi nekk ba léegi ñu ngi ñu ngi def ba moslaa kon ñun njaboot gu ndaw gi ak taalibe yi la ñu war mooy bennoo xam ne yëf yi dégg nga du ak noonu ñoo bokk lislaam ji ñoo bokk dégg nga maam charte ponk lislaam yi ñoo ñoo ko bokkule kon li ñu war rek mooy ñu gën a rafetal ñu gën a bennoo loolu lañ jul ba tax at mu jot ñu ànd ak Baye Fall yi ànd ak taalibe yi nga xamante ñoo nekk Kaolack ak li ko wër dégg nga ñëw ba jàpp benn bis benn bis boo xamante ni dañuy ñëw bala mit mu set yendu feek ñoom dégg nga maam sa sa sargalante saa fi ñaan nag sàkku fi tiyaaba it encore li li ci